tey la woon euh, conseil supérieur de la magistrature bëri na nag ay coppite yu nga xamni ni amna am na ca euh, tey ñu ko doon amale ci palais ba jeex sank waye nak euh, li ci gëna fess ci coppite yi moy procureur de la république procureur de la république ki di seigne Bassirou gueye mom nak kiko wutu wuutu muy Amady Diouf nekkoon président chambre d'accusation bu Dakar mom mo fum toll ni moy procureur de la république kon nañ japp ni procureur de la république fum toll ni moy Amady Diouf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 euh, ki ko fa wuutu nag mooy euh, Mamadou Dem, fu mu le nouveau président de la cour d'appel kon daal gis ngeen ko bëri ay euh, Tamba aussi wax nañ ni kii di Waly Faye moom la ñu nommé mu premier président de la cour d'appel Tamba Kunda. Djibiba, moi le nouveau procureur général de Kunda. kon daal loolu mooy xibaar yi ni aussi sëñ Bassirou Gueye wax nañ ni ci xibaar yi ne dañ ko détaché à la présidence kon daal jàpp leen ni sëñ Bassirou Gueye fu mu toll nii mën naa am présidence la jëm ñu ngi leen di jaajëfal.